aca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di dellowaat ku nekk sa wàccuwaay amaat lii di kontaante ak mbégte bu baax a baax comme ni ma ko faral def ak euh, sëriñ sëpp tey nag mu fas yéene dalaat fii beneen sëriñ di Mara ñu koy tuddee Thierno Al Hassane Ba tey nag ñu fas yéene waxtaane ci ponk yu am solo rawatina li nga xam ne saa su nekk nit ñi ñu ngi koy sàkku su fii ci keppaaram am ci moom yaakaar bu baax a baax a baax ponk yu bëri dinañ ci développé rawatina ci biir réew mi ak bitim réew ak li nga xam ne saa su nekk mu ngi ciy ñaan damay bàyyi mu nuyoog mbokk askan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala baada auzu billahi min asheytaani rajim maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm eh, di nuyu xalifa diine ak xalifa aada yi ñi nekk ci fii ci biir réew mi ak ñi nekk ci biti réew rawatina waa 221 people kenn ku ci nekk maa ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa jërëjëf euh, Thierno Alhassane Ba ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaan di naan la dal jàmm te di si suñu njëlbeen émission ci biir site bi di 221 people ni ma koy waxee ak ñëpp. acca dooma ko baale nag balaa ñoo tàmbali ndax euh, ni ma koy defee saa su nekk fa yéene naa koo def fii ba weer ndax fan yii yëpp tàmbali naa ko. Euh, ni ma ko waxee saa su nekk mu di yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan yéen nañuy safoo seen bànneex la ñuy topp seen ndam rek lañ soxla moo tax ñuy xëy suba ba ngoon di dang dangi seen mbokk sëriñ si laay delsi du ma ne ñan lii ñi nga xam ne dañuy dóor di naxaate loolu nag waxoon naa ko dinaa ko waxaat fii ba weer képp sëriñ boo xam ne da ngay dóor di naxaate lii di site bi di 221 people doo fi jaarate fii moom mën ngaa xool feneen mais fii moom bokkatut mën ngaa wër feneen nag ndax lenn dafa am kii yëkkati xaalis bu takku am ci yow yaakaar ne la ñaanal ma ay quatre cent mille trois cent mille ay millions nga mën koo lekk ne ko malix mu reese noonu tu nangoo koo ñaanal fu nekk nag ñu fay woo ci suñu service lii di vocal bi nga xam ne saa su nekk ñu ñuy ñuy karkare pour ñu am loo xam ne dinañ ci am euh, jàppale leen ci lenn nag mooy li may wax ci tënk rek képp kuy dóor fii ci biir site bi doo fi jaarate acca ñu bala nga dem waaw euh, euh, fi may acca fi may tàmbalee nag am da bëgg loo ci bëgg a balaa maa dugg sama biir question waaw dafa am lu ma bëgg a wax mm-hmm. lu am solo te dangaa wax lu am solo mooy dóor mm-hmm. Euh, defe naa ne alxam maa ngi sant yàlla bu baax ci liggéey bi ci ñaan yàlla bi may liggéey mhm. ndax euh, maa ngi ciy tedd maa ngi ci am lu nekk fa tabarakallahu te site internet bi taxul bii mooy sama euh, première mission mhm. macha allah maa ngi sant yàlla li may wax toujours mooy sudul woon internet bi ñu bari duñ doon sëriñ mhm. waaw li nga wax lu am solo la wàllum dóor loolu dafa bari bëri na tey sama téléphone bi tey ñi may jëflanteel ñi nekk Europe Amérique fa tabarakallah ñooñu dama leen a yërëm ndax ñoo ñu laa gën a mën a liggéeyal nga nekk Europe di xëy 4 heures du matin 5 heures du matin nga bàyyi sa njaboot bàyyi sa yaay bàyyi sa papa bàyyi sa lépp nga am jafe-jafe liggéey nga am jafe-jafe këyit nga gis nit ki am ci moom confiance nga woo ko jël sa alal jox ko mu bloqué la wala soo ko oowee du la jot. loolu dafa metti lu la looloo tax ma gënoon a bëgg a génn pour lancer appel ñi nga xamante ni dañuy def loolu du du yàgg. Mhm. rawatina ki nga xam ne mooy euh, benn féticheur wala faux féticheur. am na koo xamante ni mhm. la. may ma ma ñëw balaa mhm. ma dugg ci samay biir question yaatal. Mhm. Euh, balaa ma laa laaj nga dugg ci li nga xam ne war nañ ci waxtaanee mu di foofu nga daaneele sànq li nga ci yor ci audio ñu nit liñ ci yor ci audio bëri na. mais da di ñun daam na ñuy doxee din foo dinañ am preuve balaa ñoo saytu li nga xam ne yàgg nañ ñu koy clamé. léegi nag bañ ko gisee moo tax ñu bëri daa ngeen leen gis fii nii sëriñ su bëri. yu fi ràññee ko ci biir site bi 221 people du ngeen leen fi yàllati mm-hmm. ndax dóor mënu cee xaj mm-hmm. gaa yi lañ fi nekkal mm-hmm. seen tawféex ak seen jàmm ak salaam ak seen loo xam ne nañ ci am kii moom la ñuy dox aja fi may tàmbalee nag bokk na ci mbirum seet bëggoon naa tey nga ñëw ci bu baax balaa balaa maa dugg ci ci ci question yi balaa maa dugg ci question yi foog fii leer ndax ojo yi ñoom xëyuñu rek envoyé ma ko audio yi xëyuñu rek envoyé ma ko parce damay jëflante ak nit ba yàlla def jàmm liñ doon ñaan yàlla sotti day mujj fépp fu mu jaarul ak sëriñ dama koy envoyé rawatina ki nga xamante ni mooy kunkande ak keneen koo xamante ni turam day ki yàllaay kese xaw ma bëri naa ay audio yoo xamante ni tey su ma ko tegoon fii émission bi dina jeex rawatina am lu mu def mhm. loo xamante ni nee xar baax la mhm. loolu ba ñu nekkee ba ñu nekkee ci daara ja kunkande loolu ay semaine lay am ci benn site internet laa ko seetaan ay semaine lay am xam nga loolu daf ma metti looloo tax damay bëgg a wane parce que man ci wane preuve laa dëkk nit soo ma joxee sa xaalis dama lay ñaanal yàlla ba soxla bi faju mhm. ndax guddi soo xëyee di ut mhm. di ut loo ñu jox soo ñu ko joxee ñu tamit dañuy dañuy gontu du ut nan dañuy def ba sa soxla faju léegi dafa génn keroog ne jinne yi ñoo ko jox xaalis léegi damay damay wax sénégalais du jinne moo ko jox xaalis loolu ay pexe moom moom Kounkandé moom Kounkandé mm. loolu daf ma nakkari en tant sëriñ en tant que ñaankatu yàlla. Mhm. am na loo xamante ni su ko gisee ci liggéey bi. loolu mhm. du ma neex. yaa ngi dégg. Mhm. léegi li mu def ba ñuy jàng ca daara ja loolu dañ ko doon foowee léegi moom ba mu ko defee ba pare. dafa ne ku mën na def mu teg ci mu ne sëriñ si nañ dem uti xam-xam. soo gisee tey ma bëgg a wane li nga xamante ni du dëgg. moom dafa bokk ci ñu war a dem uti xam-xam. moom Kounkandé moom Kounkandé lan moo la naqari loo bëgg a wane. waaw parce que dafa def nii mu jël dafa def lii mu jël benn kayit mu am lu mu ci bind mhm. mu bindu bindulu mu def ko ci biir kayit bi mhm. mu tëj mu tëj ko def ko def nii mhm. même kayit bi sax da cee def ay morceaux yu xonq loolu yëpp pour gëlëmal jaamu yàlla yi la te loolu àkk la mu dóor loxoom ci kayit bi jàng-jàngulu ba xolam sedd mu ubbi kayit bi daal di def nii ne jinne yi ñoo koy may xaalis génne soixante léegi lii cent mille francs la moom mu génne soixante quinze mu ne jinne yi ñoo ko ko jox lii du dëgg jinne joxuñu ko ko loolu ay pexe la. léegi léegi da nga may laaj nag nan la ko defee. waaw loolu laa bëgg a xam nu mu def ah, ba def ko ndax lii nii du doon man mënuma ko sax. léegi gis nga gis ngeen gis ngeen sénégalais laa bëgg ñu yeewu. Mhm. léegi gis nga dafa jël xaalis bi duggal ko ci. beneen kayit baa ngi nii. gaa yi xool leen bu baax kon. waaw fii fii la kayit bi nekk. fii la dugal kayit bii tëj. Mhm. mu wëlbati. Mm. bi def xaalis bi moo ci moo ngi ci ginnaaw moo nekk nii. Mm. fii la xaalis bi nekk. léegi mu ne jinne ñoo ko jox xaalis. lii jinne joxuñu ko xaalis moom moo fa defoon xaalisam. Mm-hmm. kon ñu bàyyi naxaate yi. Mm-hmm. ñu bàyyi caaxaan yi ñu nangoo liggéey ñu nangoo jaamu yàlla ñu xam parce que. Euh, borom bi subhanahu wa taala dafa wax ci alquran benn aaya. ni ko maam Raan di waxee. Mm-hmm. mu naan yawma laa yanfa'u wala banuuna illaa man ataa bi qalbin salim Mm. bis boo xamante ni sa alal du la jëriñ sa doom du la jëriñ illa man atallah ku dul ku ñëw indi ci yàlla di qalbin salim xol bu sell <laughs> kon yow bis boobu alal du la fa njëriñ kon alal di nga doon nax jaamu yàlla di lekk la ban sens la am alal ba nga takkale ba jënd ci oto oto bi ban sens la am mhm. alal bi nga fen nax jaamu yàlla yi wax lu dul dëgg ba jënd ci kër kër gi ban jaamu yàlla la am mhm. ëllëg soo deewee ba nga dugg sa biir bàmmeel say doom ñooy des di xeex sa ginnaaw wàllu miraas mhm. kon ana njëriñu alal nañu ragal yàlla nañu ragal yàlla am solo ñu bàyyi lu ñuy nax jaamu yàlla yi man maa ngi nii di soog a génn ci site internet di wax li jëm ci wàllu ñaan yàlla parce que soo gisee ma koy def parce lu ma metti la lu ma metti la wasalaamaaleykum jërëjëf euh, Thierno Alhassane Ba am na solo ci foofu nga xam ne fa lañ tàmbalee woon suñu émission bi walante nag euh, ñuy dugg yaatal damay dellusi waat sama question bi mu bokk ci biram seet ñu ñëw ci ni ngay seetee ak ban façon seet ngay def nga jàppale ci ñi nga xam ne ñu ngi fii ak biir réew ma nga xam ne dañuy jaaxle saa su nekk bëgg ñu seetal leen seet bu doy waar bu wër ñu dellusi. waaw seet euh, dafa am solo parce que nit balaa ngaa dugg ci ci dara da nga ko war a seetlu. Mhm. ndax borom bi subhaanahu wa taala moo ngi wax ci alquraanil karim asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum asa an tukrahu shay'an fa huwa xayrun lakum mm. léegi-léegi da nga bëgg dara fekk loolu nga bëgg nekkul lu gën ci yow léeg nga bañ dara di ba di ko daw fekk loolu nga bañ ba di daw loolu lu gën ci yow la loolu nag soo bëggee xam nag soo bëggee dugg ci dara ba xam lool ndax lu baax la wala lu baaxul mm. mm-hmm. danga nga a dem ci kooku mën ku mën seet mu seetal la mm-hmm. léegi dafa am seet am li ñuy wax wa léegi xalwa ñu bari dañ koy tudd waaye xalwa dafa am heure yooyu toog di jaamu yàlla dafa am heure yoo xamante nii dangay ngay tëdd nelaw léegi nelaw bi ngay nelaw ca ngay gis soxla ba taxoon nga dugg xalwa bi ci biir nelaw ci biir nelaw bi hmm. léegi su dafa am dafa am xalwa boo xamante nii baada kullu faridatin dafa hmm. am tur yàlla booy liggéey dafa am xalwa boo xamante nii ginnaaw chaque ñetti fan wala wala wala wala wala juróom-ñaari fan. Mhm. wala quarante jours. Mhm. saa yoo jullee gee ba sëlmal dafa am tur yàlla booy liggéey. Mhm. lu ci mel ni latif. nga wirdu ko nga wirdu ko wala qaxaaru. wala fattaaxu wala razaaku. yaa xam tur ba ngay ñaane yàlla. yaa xam tur ba nga duggee xalwa bi. léegi soo su fekkee def nga ko ci sulusul leelil awwal. ci soo xaajee guddi gi ñetti xaaj. léegi xaaj bu njëkk ba ci nga koy def. ñaareelu xaaj bi ngay tëdd nelaw ñu wan la la taxoon nga dugg ñetteelu continuer sa say say say say jaamu yàlla hmm. ba nga julli fajar soo jullee fajar da ngay jàng alquran lu toll ni xisib wala ñaari xisib léegi su fekkee xallo bi da ngaa bëgg a falu nguur hmm. wala da nga am place bu rëy bu la jaaxal nga bëgg cee dugg wala nga am ay jafe-jafe yoo xamante ni xamoo lan moo la ko teg léegi loolu incha allah su fekkee defar nga ko jaamu yàlla bi su fekkee fenoo ko fenoo ko ne da nga koy dugal xalwa nga dem dugg mu jot la xaalis nga dem tëdd nelaw mm-hmm. billaahi wallaahi mm. watallaahi soo duggee xalwa balaa nga génn soxla day faju mais xalwa lu may wax ñu bëri même soo duggee xalwa si benn ci juróom-ñaari fan wala 40 jours man duma ma dugg xalwa 40 jours waaw ñun ay ndaw lañ mm-hmm. lépp lu may wax dama koy wax damay wax lu leer am naa secret xalwa 40 jours am naa secret xalwa juróom-ñaari fan am naa secret xalwa ñetti fan parce que aw ma jotu dugg xalwa 40 jours. Hmm. léegi loolu su fekkee tey nit ki même su dee président Macky Sall sax soo ko bëggee dugal xalwa 40 jours du la ko mën a fay. Hmm. yaa ngi dégg hmm. léegi loolu day jël sa temps léegi dangay ngay dugg xalwa ñetti fan wala juróom-ñaari fan nga ñaanal ko yàlla soxla bi mu bëgg mu mu mu mën a faju loolu rek moo gën am solo. am na solo góon dama lay laaj benn laaj rek bëgg ci am lu leer mm-hmm. rawatin yi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel ci site bi. Mm-hmm. mu di ci biir seet boobu noonu da bëggoon naa ci xam nan nga gisee lii di avenir Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak Macky Sall. waaw man euh, ndongo daara laa. polotik du mu ci sori ndax sama xam-xam sori wu ci waaye Ousmane Sonko liñ koy ñaanal yàlla yàlla na doon candidat 2024. waaw nit ñi ñoo ngi wax waaye nañ ko nañu nañu moytu balaa ñu koy catu parce que am na gis-gis bu baax ci réew mi. Mhm. am na gis-gis bu rëy ci réew mi kon liñ koy ñaanal yàlla man li ma koy ñaanal yàlla yàlla na bokk ci candidat yi 2024 yi. te sëriñ si ñu bàyyi gis naa gis naa gis naa. gis nga gént. Mhm. soo gént naa démb gis naa gis naa gis naa. Mhm. gént nekkul lu nga gis rek loolu lay firi. gént naa te ñu si gën a bëri ñi may gi ci sëriñ si gis naa kilifa diina yi dee di tiital jaamu yàlla yi nañu bàyyi loolu hmm. nañu bàyyi loolu su fekkee da nga am baatin nga gis balaa nar a wàcc ci réew mi comme ni ko dabbaax doon def génneel nga danañ joxe sarax wala nga ñaan yàlla comme que yàlla na la basiira ba nga ba moon la loolu hmm. nga ñaan yàlla na yàlla na yàlla fànk loolu hmm. walu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg su gisoon balaa nar a wàcc ci askan day ñaan yàlla yàlla na yàlla na wàcc ci moom yaa ngi dégg ah. parce que Sénégal dafa am lu fi nekk nañu bàyyi gis naa gént naa musicien yi dégg léegi nga dégg nit ki ne musicien bu dee safara la jëm gis nga safara ak àjjana yàllaa ko moom mhm. ñun ay jaam lañ abdan mamlukan laa yaqdir mhm. ala shay mhm. nit jaamoon yàlla ba dee dee dugg safara nit toog na dundam yëpp musul jaamu yàlla dee dugg aljanna kon aljana ak safara yàllaa ko moom ñun euh, li ñuy war mooy nañ jaamu yàlla wa ma xalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mhm. defuma nit ak jinne lu mooy ñu jaamu ma kon nañ jaamu yàlla rek di des nag yàllaa xam mhm. aji Sarr nag euh, sénégalais la sénégalaise la mhm. maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dindi ci jafe-jafe yu nekk parce que nit ku nekk euh, su fekkee euh, ñaankatu yàlla nga doo ñaanal nit ki safaan man li mu koy ñaanal rek mooy nañ ko bàyyi xale la te na ko nit ñi yërëm kenn ku nekk na nga xoolee sa doom wala sa rakk. Mm-hmm. kon te jigéen la. li ñuy def ni dafa am lu muy yàq lu bari ci réew mi te xamuñu ko. Mm-hmm. Ousmane Sonko ak Macky Sall duñ benn. man Haalpulaar la min ko mi Haalpulaar. te mm-hmm. taaniraabam nay bi foofu ko mi Haalpulaar. ko mi Haalpulaar. nenam ko Haalpulaar baabam ko Haalpulaar taaniraabam nay bi foofu ko Haalpulaar en. kono minen Macky. ci yonde mi wax ñu ko ci la sama yaay xaalpulaar la mhm. sama papa xaalpulaar la sama ñeenti maami yépp ay xaalpulaar lañ mhm. waaye Macky man doyuma nit bu ñu tànn président ci ay xeet nañu bàyyi man séeréer la man pël la man mhm. olof la man nangam laa déedéet nañu xool ñu ñaan yàlla koo xamante ni kuy njëriñi réew mi la amal na réew mi solo ñu fal ko jàmm am waaye kii séeréer la man séeréer la moom lay àndal déedéet man Macky Sall ba mu génnee 2012 dama ko gis déglu ko mu doy ma ma voteel ko ba mu demee ba ci biir la mu waxoon defu ci dara ma dellu ginnaaw yaa ngi dégg. Mhm. ñoo ngi ñaanal Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla may euh, lu muy ut. su ko mhm. utee lépp lu mu bëgg ci réew mi. Mhm. yàlla bu ko yàlla rocc ci xolam. yàlla na ko yàlla saxal ci xolam. su ko yàlla joxee réew mi lépp lu mu am yéene yàlla may ko doole pour mën ko def képp kuy noonam koo xamante ni taxaw na pour faagaagal ko mhm. yàlla na ko yàlla bu yàlla bu ko yàlla sotti parce que doo ñaanal nit sa noon sax mhm. bu ko ñaanal ay ay jafe-jafe da ngay ñaan yàlla mhm. sa noon li mu nar ci yow bu mu am waaye na am jàmm dund gi continué. mu ngoog asalaam jërëjëf jërëjëf euh, Thierno Alhassane Ba am na solo fi mu daanelee aca foofu nga doon wax sax dégg naa nga fay wax ba dugg ci biir foofa laay sempe am lu ma seppi samp sama laaj. Mhm. mu di mbirum ñaan ci yàlla bi nga doon wax bëggoon naa euh, lan nga ñu mën a wax ci mbirum euh, ñaan yàlla. waaw xam nga ñaan yàlla jafe na jafewul parce que ñaan yàlla laa budd nga ragal yàlla. Hmm. laa budd nga jub. laa budda nga maandu am xam-xam yaa ngi dégg mhm. laa budda nga am yar li ëwwal ci dund lépp looy sàkku rek jiitalal yar mhm. yaa ngi dégg ndax benn boroom xam-xam nee na taadduban fi zahirin wa batinin bihi yuraqul mar'u lil mawaatini mhm. na nga am yar ci zahir nga am yar ci baatin yaa ngi dégg dafa mel ni dafa am lu koy laaj nekk ci ñaari yar yooyu yuraqul mar'u la nit ki di lil mawaatini ci ay maqaama yaa ngi dégg léegi euh, li ci topp mooy mooy ragal yàlla lépp loo mën su la nit su nit ñëwee ci yow. Mhm. wax la soxla nangam nga mën ko nga am ci xam-xam wala tegtal nga ne ko aha lii ak lii de xam naa ci dara am nañ ci tegtal. Mhm. lépp loo mën loo xamul nga maandu ci ndax nee nañu nisful ilm laa adri yéen bi sallallahu alayhi dafa ne. wa man amila bi ma alima warasahu llahu ilman maa la yaalam mhm. képp koo xamante ni jëfe nga loo xam rek borom bi subhanahu wa taala dana la xamal xam-xam boo jàngul woon mhm. kon ñaan yàlla da ngay ñemee jaamu yàlla mhm. yaa ngi dégg comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee ci xadisul qudsi yu euh, laa yazaala abdi yataqarraba ilaya bi nawafil xayri xata uhibbahu fa ida ahbabtuhu kuntuhu sama jaam bi du jege du deñ di ma jege ci nawafila yu baax xataa uhibbahu ba ma bëgg ko mm-hmm. fa ida ahbabtuhu su ma ko bëggee rek mm-hmm. kuntuhu ma nekk mm-hmm. yaa ngi dégg soo demee ba toll ci maqaama boobu noonu léegi loo ñaan yàlla day am loo ñaan yàlla day sotti yaa ngi dégg te heure boo taxawee di ñaan yàlla soo soo soo soo jëlee sa kurus yaa ngi dégg ñaan yàlla booy ubbee rek wax allahumma allahumma yow yàlla maa ngi soxla nangam ak nangam wala soxla bi diw indi ci man soxla bi nangam ak nangam yàlla nag ma ko fajar fajal ci barke sa tur yaa salaam hmm. parce que soxla boo am rek dafa war a am salaam hmm. mooy jàmm léegi jàmm fu mu nekkul rek bànneex du fa nekk ah, léegi ñaan dafa am yoon hmm. dafa am adab dafa am ay turuq nooy def nooy ta ba nooy bakkee sa sa sa borom ba ñaan bi mën a antu ginnaaw ba nga setee selal jub maandu yaa ngi dégg loo ñaan yàlla da koy def comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa ya'ni bokk na ci rafetal sa diine sa jikko mooy nga maandu waaw sëriñ si nañ maandu maandu bokk na ci nañu bàyyi li ñuy wax gis naa diw gis naa kilifa diine bi dee gis naa waykat bi dee loolu yépp du du du du du yar rek tax lépp lu ñu xam ñu def ko lu ñu xamul nañ ci maandu. am na solo acca jërëjëf euh, Thierno Alhassane Ba am na solo ci ponk boobu ñu duggoon di yaatal lépp lu bokk ci ñaan jëmale ko ci yàlla foofu laay dox wéyandi njëkkanteeg euh, waxtu wi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi fii ak bitim réew mbirum kayit jafe leen lool lool lool dañ koy sàkk ay ati ati at ba euh, mu doon loo xam ne lu metti la ci ñoom am na ñu fa nekk sax tàggatémbe pour ñu indi fii dara problème lay doon yónnee ñu ñëw ci. waaw dafa am ñoo xamante ni. Mhm. jamono bi dem. daa fekk seen biddiw toog. seen biddiw toog. seen biddiw toog ndax dafa am li ñuy wax ilmu nujum. Mhm. yaa ngi dégg léegi soo déggee nujum mooy tabiya tabiya bi dëgg-dëgg mooy ko mhm. léegi nujum nekkul lu am jëmm mooy koy nit ki. Mhm. nekkinam loolu mooy nujum loolu waxin la parce que loo gis lu yàlla sàkk rek foog ñu utal ko tur ndax nit ñi mën ci am dégg-dégg su nit ñi amee dégg-dégg ñu mën koo njëriñoo. léegi nga dégg nit ki ne la euh, euh, biddiw ne la biddiw ak tabiya benn la yaa ngi dégg mhm. léegi tabiya boobu mooy mooy nekkinam mooy kii dafa am dafa am lu ñuy wax maa iyu am naari am xawaa iyu am turaabi léegi nit ñi kenn ku nekk dafa am ci ñaar ñeenti melo yi dafa am ci benn melo boo jël mhm. dafa am koo xamante ni moom nekkinam nekkin suuf la am koo xamante ni nekkinam nekkinu ngelaw la mhm. am koo xamante ni nekkinam nekkinu ndox la am koo xamante ni nekkinam nekkinu safara la nga gis am na ñoom dañoo tàng am na ñoo xamante ni dañoo oyof même soo leen dooree saaga leen duñ fayu <laughs> mm-hmm, mm-hmm. yaa ngi am na ñoo xamante ni ñoom mënuñu toog dañuy dox rek ñoom dañuy dox rek ñan pour ñu am foog ñuy dox ñooñu ay ngelaw lañ yaa ngi dégg mm-hmm. na ñoo xamante ni dañuy ñoom dañoo tàng mënuñoo muñ dara loolu ci ci ngay xamee biddiw nit ki yaa ngi dégg ci ngay xamee nga xam ne kii nangam la loolu même soo ko seetul sax su fekkee am nga xam-xamu basira nit ki soo nekkee ak moom benn benn waxtu nga xam ne kii lan mooy biddiwam ci tàngaayam ci oyofam ci ci ñàkk xam koo xam ne dafa dafa lëj mhm. ci xale la ci lu <laughs> muy gën a mën di feeñ mhm. moo ci xale bu daw mhm. nga gis xale koo xam ne day jooy fu mu toll day jooy soo ko dóoree rek mu yuuxu jooy nga xamante ni biddéewam safara la waaye li ci gën a bëri day am wërsëg yaa ngi dégg léegi ci la ñuy xam ci la ñuy xam ñaari jaamu yàlla yi ñaari jaamu yàlla est-ce que mën nañoo sëy mën na nañoo sëy ci wàllum biddéew fekk mënuñoo sëy ci wàllum rawaxaan est-ce xam nga loolu. Mm-hmm. mën nañoo sëy ci wàllu biddew fekk mënuñoo sëy ci wàllu rawaxaan suñu àndee sëy dañuy am da ngay ubbeeku waaye jaamu dox seen waaye su fekkee jote nañ rek kii su ñibbee kër papaam jigéen su ñibbee rek day bëgg ñibbi si. ngi dégg mm-hmm. góor gi tamit day bëgg mu dellu si waaye heure bu dellu si jaamu du amaat ngi dégg. Mm-hmm. loolu mën nañu sëy ci wàllum biddew waaye mënuñoo sëy ci wàllum rawaxaan. loolu lu ñuy calmer la. loolu mooy li ñuy ilmu nujum léegi nag nga gis ñu bind ay ay ay biddiw yu bëri ci kayit. ndax question boobu laa bëggoon a samp sax yaa ngi dégg. Mhm. mooy li nga gis nii. Mhm. ay ay ay shamsu ay zuhal. yaa ngi dégg mhm. ay ataarit mooy juróom ñaari biddiw yi. du bëgg a wax yépp ndax li ñuy wax siru la. Ah. ñu dañ koy dañ koy tudd. mooy mooy mooy yi nga gis ni mooy xamar ak yu mel noonu ak yu mel noonu loolu moo tax léegi nga gis ñu ne nit ki mënoo koo ñaanal fekk xamoo biddiw loolu mënul nekk mën nga koo ñaanal fekk xamoo biddiw turu yàlla nga jël ko nga zikar tur bi zikar tur bi zikar tur bi zikar ba yàlla wuyu si la yaa ngi dégg nga ñëw indi ci man soxla noo tudd cheikh langam ak nangam moo nekkoon sama soxla ma jël tur bi ña ñaanal yàlla wala ma jël téere bi jàngal ay yaasin sa soxla faju fekk seetalu ma la gis nga fuuta kilifa diina yu bëri yaa ngi dégg soo ñëwee duñ nango seet istixaara déedéet waaye un deux trois nga dégg dem nañ Maroc dugg xalwa wala dem nañ feneen dugg xalwa ñoom xalwa lañu gën a mën a def hmm. ak seet toog di seet nii nii nii hmm. loolu ñun ñun ñoo koy def ñun ndaw ñun ndaw ni soo ñëwoon ci daara ji tey hmm. nga ne seetal ma dañ lay boole kenn ci taalibe yi mu wéet ak yow mu mu mu am lu mu def ak yow mu seetal la ba wax la say la nga dem sa yoon yaa ngi dégg te dara du ci dañ te dara du ci dañ billaahi wallaahi wa tallaahi musuma seetal nit musuma seetal nit ba ba su ma su ma la seetalee daal du ma ci bëgg du ma ci bëgg ak yaa ngi dégg mm-hmm. léegi xam-xam dafa am mm-hmm. nañu nangoo jaamu yàlla gis nga am na benn xeetu xam-xam boo xamante ni comme mm-hmm. comme xaatin bi tey nit koo xamante ni dafa dem ba yàqu yaxet waaw nit koo xamante ni dafa dem ba yàqu léegi xaatim bi lañ lay bindal lii ci wàllum rawxaan lay dox yaa ngi dégg waa li ci morso bi dafa am lu ñuy wax lu ñuy wax am lu ñuy wax xuddaam léegi xuddaam nekkul am jëmm sëriñ nañ ko xam. xuddaam nekkul loo xam lu am jëmm la naan xuddaam ak jinne ak rawxaan ak seytaan ak nangam ak nangam xuddaam mooy ijaaba. xuddaam mooy ijaaba. Mm-hmm. xuddaam mooy xidma xidma mooy liggéey. Mm-hmm. comme comme comme xaadimu rasul. Mm-hmm. Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul. yaa ngi dégg mooy kii xuddaamu jënante bi. kii kii xidmaa jënante bi. ki koy liggéeyal. Ah. yaa ngi dégg mooy tur bi nga xamante ni wirdu nga ko wirdu ko ba yàlla may la ci ijaaba. tur bi loo ci fëgg rek mu ànd mhm. léegi loolu moo mooy xuddaam tur bi nekk na sa xuddaam parce que Cheikh Ahmadou Bamba dafa liggéeyal yenent bi liggéeyal yenent bi bañ ne ko xaadimu rasulu mhm. dafa yomb ba sëriñ bu jóg ne dama am xuddaam dama am xuddaam xuddaam neex na am xuddaam mooy tur bi ngay liggéey ah, ba yàlla wuy la si ci tur bi mhm. léegi xoolal xaadimu rasulu Cheikh Ahmadou Bamba moom mooy xuddaamu yonent bi sallallahu alayhi wa parce que dafa liggéey liggéey liggéey ba mu soppeeku doon xuddaam di liggéeyal yonent bi mhm. ay preuve yaa ngi dégg mhm. léegi xuddaam boobu noonu mooy su la neexee nga damm ci ay xaatim mhm. léegi xaatim bi lii ñaari xaatim la lii la lii nii xaatim la yaa ngi dégg léegi bi bii nekk ci kaw nit koo xamante ni ay mbiram dafa yàqu yaxeet yaa ngi dégg kooku laa soxlu mu ñëw ma bindal ko mu sangoo ko nga defaraat ko yaa ngi dégg mm-hmm. lii ci li jëm ci yàqu-yàqu bi ma ana mm-hmm. bi ma ana bi ma ana almet bi gis nga gis nga gis nga mm-hmm. dafa am lu ñuy wax xam-xamu barxuut keroog dama dégg benn sëriñ muy wax mu ne ñii barxuut kii chamharus ñii nee nañ jinne la ñii nee nañ tur la yaa ngi dégg ñii nee na deena wala deewul nañ bàyyi caaxaan Shamharus jinne la. Mm-hmm. Shamharus turam la. Shamharus dee na doomam bi ñuy wax Maymuna moo ko wut. Mm-hmm. Shamharus bokk na ak Nabiyullahi Ibrahima jamono. Mm-hmm. bokk ak Seydi Cheikh Ahmad Tidiane jamono. bokk ak maam Cheikh Oumar Fouti Tall jamono. jinne booba daal dee na. Shamharus génn doomam Maymuna moo ko wutu. doomam Maymuna moo léegi moom su fekkee moom mooy seetaan. na ko na ko xamee noonu. su fekkee weddi na ko nag mu woo ma ma expliqué ko. ka jàngal ko. yaa ngi dégg. léegi barxuut nag tur bi ñuy wax barxuut. ci la jógee. mooy badatu bi bismillahi ruuxi bihi ihtadat ila kashfi al asraari baatinihim tawat wa sallaytu fi thani ala xayri xalqihi muhammadin man adaaxa dalalat wal xalat ba mu jeex juróom ñaari bayti mm-hmm. yoo nekk ci pour nga am koo xamante ni am na yëpp mm-hmm. bu jafe la mm-hmm. léegi fuuta soo ñëwee ci nit di sàkku ci moom wax ma jàngal la ko wala ma may la nga ut ku la ko jàngal wala ma may la benn bayti ma jàngal la ko nga dem nga jëriñoo ko man juróom ñe euh, euh, vingt sept béet yëpp loolu man yaa ngi dégg mhm. léegi nit ñi nañ nañ nangoo jaamu yàlla léegi bi ma anaa gis nga par exemple léegi lii soo jëlee mhm. balaa nit ñi wax damaa sange brin bi dama ci bind ba nit ñi xam ne brin bi pii laa def ci morceau bi mhm. léegi ma jox la nga yàq nga yàq brin bi léegi loolu mooy wane ni man soxloo ma koo xamante ni say affaire dafa baax nga bëgg mu yokk damaa soxla koo xamante ni yaa demewoon nga sa ba say affaire baax say affaire yëpp yàqu yàqu yaxet léegi du lii dama cee bind mhm, waaw tëyal beneen bi mhm. tëyal beneen bi nii nga xool mhm. léegi du tëye nga beneen bi léegi du gis nga gis bi jox ma jox ma jox ma beneen bi du gis nga ko du gis nga bii laa la jox gis nga. Mm-hmm. moom lañ bind ah. voilà beneen bi mu ngi nii moom laa bind. Mm-hmm. léegi. jarul jarul ngay jarul jarul jàng ana mu sax voilà am kaay tey jarul jarul jàng jarul jarul jarul jàng jarul kii damm ko. waaw. bu tàggali ko waaw dam dam nga ko. dam na waaw. waaw léegi lii. Mhm. loo loo ci def lu yàqu. Mhm. bind bindal ko nit ki ni nga jox ko ko. da koy defaraat. léegi beneen bi moo nekk nii. Mhm. amul dara loo ci def lu yàqu te du te du baaxaat. waaw amul dara loo ci def mu yàqu. te dañ koo dam waaw te baaxaat. lii loolu moo tax ma ne man soxla ma koo xamante ni say affaire dafa baax. na yàqu yaxet. mooy xaatim bii lii ci barxut la jóge kon lii nii du ñeengo du dara waaw lii lii mooy wa allif qulubal alamina bi asriha alayya wa atir qubula bi salxaman ci nga ci ngay liggéey six mois mhm. ba rawxaan bi wuy la kon woot na naag li li nga doon classe sawaay déedéet loolu xam xam-xama kunkande loolu léegi lii man ku ko mën tamit na def léegi lii amul amul beneen morse ci ginnaaw ci kanam mhm. defaat ko defaatal defaatal ñu ñu ñu mën a termine tàggali ko voilà damman mhm. dégg nga taj léegi amul ñaari morse dafa leer kay amul ñaari mo bi bii mhm. ñaari morse bi benn morse la leen ko dafa leer mhm. benn morse la léegi moom nag ñaari këyit la yor léegi moom def na xar baax teel kii leer léegi moom def na xar baax moom moom ñaari këyit la def ñaari kayit benn baa ngi nii fi këyit bi nekk. Mhm. bi ci suuf fii la xaalis bi nekk. Mhm. moom lii la def léegi lii lii benn morceau la. Mhm. lii mooy. lii mooy béyti bi ma la jàngal ci barxuut. ci lañ koy liggéey. yar la waaw man xam bi donnu ko ci sama papa man sàmmkat la. yaa ngi dégg sama maam këñ ma tuddee. yaa ngi dégg sàmmkat la. yaa ngi dégg sama maam ci sama côté yaay. ñooñu ñooy ay boroom xam-xam. falaa jànge falaa yaroo falaa defaroo. ba soo soog a ñibbis tamit daw ma jóge ma àll ba daw si fii de déedéet fii laa juddoo fii fi ngeen ma fekk fii laa ah, juddoo ba ma demee jàng ba pare damaa ñibbisi mhm. waaw nekkul ñaan yàlla moom mu indi fii déedéet fi ma juddoo soo demee jàngi xam-xam soo baree. Mhm. da nga dellusiwaat dëgg la am kon euh, Thierno Alhassane Ba aca am nañ kontaan ak mbégte bu baax a baax di lay bàyyi nga tàggatoo ba yeneen jëme jamono incha allah. waaw euh, ñu ngi kontaan bu baax. Mhm. di santaat yàlla eh, di am mbégte ak kontante di ñaanal site bi yàlla na mm. doon télé international te eh, lu am solo la képp kuy dóor moom bu mu fi jaar mm-hmm. léegi moom dinañ ràññee ñi nga xamante ni ay naxaate lañ dañuy def mm-hmm. ak ñi nga xamante ni dañuy def dëgg am na ñoo xamante ni su man dama leen seetaan damay leer nañ ni am nañ xam am na ñoo xamante ni su ma leen gis damay leer nañu amuñu xam-xam dañuy làmbatu mm-hmm. kon maa ngi baalu ak ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah